jaajëfal leen ci bi ngi di ànd tax ñun mbokku internetu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. cant ak ngërëm na leen mbokk internet yu ci m TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bi xibaar yi Alioune moom day xeex lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama daal dinay rendre hommage juróom-ñaari sages yile yu conseil constitutionnel mu ni kon liggéey bu am solo te itam rek njàmbaar dëgg nag la ñu wane lu jëm ci suñu wàllu démocratie bi nga xam ne dafa feebaroon tey jii nag mën nañu jàpp ni faj nañ ko ba mu wér ndax ñoom sages yile li nga xam ni wane nañ ko ñu nangu ko itam dugal ci seen xel ak seen xalaat mooy rekk dal ci réew mi mooy jàmm ci réew mi mooy itam rek autorité yi saa su nekk ñu wan leen ni am na itam lu gàlloo ci ñoom te ay droit la yoo xam ni dañ ko war a rek sàmmoo saa su nekk Habib Sy moom candidat la ci élection présidentielle li mu wax mooy dina rek woo ñi nga xam ni ñoom la bokkal langu politique bi rawatina ñi nga xam ni ñoo war a ànd ngir rek amal jongante présidentielle bi ngir nag ñu daal di rek toog ngir xeex ci datu élection bi nga xam ni njiitu réew mi jàpp na ko mu jàpp ni kon ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru bi nga xam ni lañ ko daal di amal amaana kon ñoom arrangé wu leen benn yoon moom Habib Sy sax kàddu yi suñu naataango yi lee di waa RFM la ko xamal li ñuy wax kay mooy kon moom fanweeri fan benn ci weeru mars kon bu sañoon ci la amal élection présidentielle yi mu mel ni loolee kon lu ñu war a waxtaane la ginnaaw mu jàpp ni kon datu élection yi kon ci lañ ko war a amal file ci Sénégal